soxna Ami Yàlla Njaay war ko ànd ak nag coordonnateur général bu France di sëñ Murit Ndaw ak mboolem coordonnateur yi nekk ci diwaanu Paris te seen jëwri nekk sëñ Xaadim Badiane war a ànd ak soxna am Yàlla Njaay ak bokk yu nekk France yëpp bis boo am solo muy 24 décembre ngir bañ a guddal rek soxna Alimatu Dukuré bis boobu nan ngeen ko fas yéene amale ak ñeen ngeen ciy woo. baytan comme ni nga ko waxee rek bés bi moom ñun bu dee si wàllu soxna yi ñun tàmbale nañ si liggéey bu yàgg. di si woo suñu mbokk soxna yëpp parce que boo xoolee ñi nga xam ne am am na si ñoo xam ne ñoo ngi fii toog ak ñun ñi jóge Europe ak euh, Afrique tàmbali nañu waxtaan suñu biir ba am na si ñoo xam ne bindu nañu si déguisement yi nga xam ne ñun soxna yi dañ ko nar a sol muy vert blanc ñu fas yéene si teew ñoom ñëpp di ñaan yàlla rek defal ñu si ndam parce que soxna Ami Ndiaye li muy def nii dafa rafet parce munoon na ne nañ koy def États-Unis ñu ànd dem rek mu yemale ko foofu mais bu xoolee initiative bi nuñ ko defee États-Unis mu rafet lool moom mu am xalaatu boppam jël ko def ko ak budget boppam laajul dara si Touba sa kanam kon ñun li ñu mën mooy li ñu am suñu doole ak li ñu am suñu ay kàddu ak ay suñuy nit jàppale ko si ànd seeg moom ba bës bi ñu am ci réussite totale te yaakaar naa ne sax. Euh, bu yaakaar tasul réussite totale boobu ñu si wut yàlla dinañu ko defal. Paris bari na fa ay daayira yoo xam ne ñoo ngi si biir donc liggéey bi des na fa bu baax. communication bi war na fa gën a mën a jàll ba liggéey bi gën a mën a tas biir Paris ku nekk gis si sa bopp Touba sa Kanam gën a mën a génne résultat bu am solo foofu donc di wax ne man sama wàllu bopp rek si soxna yi maa ngi si soññ sama mbokk soxna yëpp di leen si woo ñu fas yéene ñëw rek si le 24 décembre boobu yàlla defal ñu si xéewal rek defal ko. Touba sa jëm sa kanam ñu am si ndam bu wees suñu njort si barke Cheikhul Khadim. di sant yàlla bu baax ci bis bi nga xam ne suñu mbokkum bu baax mi di soxna mi Ndiaye yàlla mi ngi koy waaj defal Paris ñu ngi koy seq ak mbokki Touba yi nekk diaspora bépp rawatina suñu mbokk soxna yi ci woo mbokki France képp fépp nekk ci jiital ci jiital euh, sëñ Mour Ndaw mi nga xam ne mooy coordination bi ak suñu xaalim bi mi nekk Paris ak suñu mbokki soxna yi fa nekk. ñi leen ci woo ñoom ñëpp di ci woo waa daayiratu Subul Salaam mi nga xam ne ñoo ci ànd ak soxna jaay yàlla di ko jaajëfal bu baax baax ci loolu nag euh, ñu di ko yëgal suñu kilifa yi nekk Sénégal ci Touba gi euh, alaaj sëriñ Takko mi xam ne mooy euh, ambassadeur bi sëñ Abibou muy jëwriñ ji ak sëñ Abdoulaye Abibou président Abdou Fatah Gueye jiital ci yëgal gi nag Baye Serigne Gueye mi nga xam ne moo coordonné Europe ak soxna Alimatou Doucouré mi nga xam ne moo topp ci moom jiite soxna yi di woo bis bi nga xam ne euh, mi ngi jëm si di nekk le 24 décembre di ci woo mbokk yi seqal diaspora bépp euh, sëñ Modou Seck mi nga xam ne moom la ñu àndalee ak suñu Moussa Mbacké ak mbooleem ku ci nekk ci jëwriñ jëwriñ ci Touba ci kanam mi ngi la loxo fépp fu waaye maa nekk diaspora bi rek ñëw ànd liggéey bi nga xam ne soxna Amy jaay yàlla ñoom ñoo ko euh, fas yéene def Paris di leen xamal ne du yëfi kenn yëfi ñëpp la fas yéene daal bu ñu jógee Paris mun nooy nepp ba. yeneen réew yëpp fas yéene roy ci Paris ñu ngi ciy woo ñëpp. mbokki Touba ci kanam man soxna Fatim Mbeng nekk Italie ci fédération soxna maam Mariama Bousso ñoo leen di nuyu di leen ziar ñu ciy woon ak bépp daayira soxna maam Mariama Bousso boo xam ne yaa ngi ci biir Europe walla Afrique rek ñu ngi la ciy woo di la wax ne bis bi daal bisu soxna jaara la bisu Touba ci kanam la nun ñëpp nañ ñëw sar sargal soxna yi nga xam ne lu baax dong moo tax ñu di ko def te lu baax moom kenn dong waru koo bëgg ñëpp ko war a bëgg. di leen woo ci bis bii nga xam ne ni moom dañu dënmal si muy bis boo xam ne dara taxu koo jub dul bisub sant ak yaatal liggéeyu Touba ca kanam ca France. mu mel ne nag ndigal sunu borom la loo xam ne moo santaane woon ni yéen ñi gëm yàlla yëpp buñ leen woowee ci loo xam ne day da leen dundal. na ngeen ko wuyu ji yaa ayyuha lazina amanu stajibu lillahi wa rasuli isaa dahaakum limaa yuhyikum ci kaw loolu nag dañuy woo mbooleem bokki taalibe yépp ñi dëkk ci réew mi di Sénégal ak ñi nekk ci mbooleem réew yi ci àdduna bépp Afrique Europe Asie rawatina ñi nga xam ne ñoo féete France di wax ne bis la boo xam ne daal eh, képp ku ko man ñu ngi la ciy woo mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ca réew ma yëpp ak mbooleem fédération yi fa nekk association yi ak mboolem bokki judd ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di woo ci bisub soxna Ami Njaay yàlla mii di tombeek le 24 décembre ñu war koo def ca France képp ku ko man rek nga teewee bis boobu te xam ne bisub Tuubaa ci kanam la boo xam ne nii bu ca jógee liggéey ba rafet na lool ca Paris waaye da mën naa gën a rafet woote bii nga xam ne soxna Ami Njaay yàlla mu ngi koy wootee woote le 24 décembre fële ca Paris ànd ko kilifa ya fa nekk tàmbale ci njiitu sëñ Mouride Ndaw waaye ak soxna Alimatu Doucouré mi nga xam ne weesu na sax ne moo jiite soxna yi nekk euh, Marseille ak waaye tamit moo jiite soxna yi nekk ci Europe yëpp euh, tey nekk coordinatrice bu continental waaye ànd ko soxna Xori Ngom ma nga xam ne ma nga foofee ca Paris waaye nag ànd ko mbooleem soxna yi nga xam ne xam nañ leen ak ñi ñu miinagul seen tur mu doon bis boo xam ne am na yaakaar lool ñi ci woon ak waa Europe yëpp. ci teewaayu soxna Ndeye Kébé mii ak soxna Fatou Mbengue waaye ak soxna Ndoumbé Ndiaye ca Allemagne waaye tamit ak soxna euh, soxna Dieng fële ca Espagne ak soxna maam Diarra Samb ca Portugal waaye bàyyiwuñu kenn. mbokk yi bis baa ngi noonu war a yemoo kañ le 24 décembre 2019 ci diwaanu Paris mboolem ko yaakaar Seexul Xadim mi ngi la ciy woo ngir yaatal ak yàkkale bisub Serigne tubaa muy liggéeyu Serigne tubaa bi nga xam ne mooy Touba ca kanam nooru daara ni yàlla nañu yàlla boole ci ñu jokk dëkk bu sell bi di Touba ba mu yegg ca kanam wasalaamualeykum wa rahmatullah